xamal adduna bépp ni leen maa jàppoon Idrissa Seck maa ko bàyyi bis ni ki tey bu yoroon billaahi buñ deman ba nga xamante ne miracle dem na ba Idrissa Seck suñ borom jox ko réew mi man Salla Nay Leer bokkuma ak Idrissa Seck dara bokkuma ci daraam may naa nit ñi xippi naa samay bët di leen xool ak moom lu mu leen defal baax xanaa loolu leer kii li ñu daj ci moom dinaa ci dellu si léegi fi may daaneel samay kàddu Mouhamed mii ñu àndal gis ngeen ñun dañuy dañuy ay gor xaalis daf ñoo tiitalu fukk dañoo yóbbuwul dafa ñëw fekk ñu ci li ñu nekk mu def ci dooleem def ci alalam ñu wëlbatiku mën a ànd ak moom parce que dañoo nekkutoon ci ay intérêt personnel dañoo nekkoon ci ay intérêt commun parce dañoo jàppoon ñun ñëpp war nañoo mën a jàpp puus Idriss Seck jël réew mi ñu gis ni maanaam réew mi sensé na waaye jóguñu woon ngir suñ intérêt bopp parce que lu ne traversé na ku fi Ablaye Wade bàyyi nga dikk nekk fekk Macky Sall ba aj ba Idriss Seck boole tax ñu dugal ci benn saako yóbbu la ci Macky Sall waaye waaye boo bëgg na dem du la fa bàyyi léegi nag ci biir loolu moo tax ñun ñu gore ànd ak Mohamed mii investir nañ ko ci liste keroog bañ ko investir ci liste bi ku ne gis na ci campagne législative yi maa njëkk a taxaw ni Idriss Seck buñ perte élection yi am na ci responsabilité parce que mënuloo investir ku toll nii ci département bi muy génne alalam di ko ci def sa ñaari salaamaaleykum di foo ko ci ba pare wëlbatiku ni ci yow la bokk kooku kon bu ñàkkee am nga ci responsabilité te waxoon naa ni est-ce que Idrissa Seck sax di détecter pour mii ne Macky Sall mi nga xam ne daf ko fat ci këram parce que gis nga borom bi ba muy wax Moussa ak Arouna xam na ci yar ak Sall ku yebbu xippi say bët te xool xam nga génn na di ngeen dégg mu wax leneen parce que xam nga nit ku boppam perte amatul conscience tranquille mémoire bi def lu mu xam dana ko julli te di ngeen dégg mu wax leneen ku ko wool woon kër Ousmane Sonko ku ko fa yebal tuba yëpp la boo ko séenee sa taatu xarit moytul la mu wax ba jot ca sax der rafetul Idriss Seck la mu waxtaanee Ousmane Sonko waxu ko nit ñi la mu waxtaanee Ousmane Sonko waxu ko nit ñi kooku nag dansé la ci réew mi adduna bépp. opinion internationale ñu ngi leen di attirer attention ak sénégalais yépp di leen xamal ni leen kooku nañ ko jël yóbbu ko reféné li de mbaaw jox ko ay comprimé faj ko ndax nit ku nit ku wér nit ku nit ku normal kon fi may daaneel samay kàddu rek mooy baluwaat ak département bu Mbàkke góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi li tax nag mooy dañ leen a perte le temps parce que ñu bari danañ dégg sama kàddu ma yëkkat sama kàddu man nekkuma fi pour kenn xam nga kan laa fi nekkal waa département bu Mbacké waa commune Touba ku nekk dégg na bi nga xamante ni dem nañ ba fii defi financement li ma ci daj yëkkati sama kàddu ku nekk ni jigéen ñii nañ leen jàppale jox leen ci financement yi bu leen kenn nax ku nekk gis na ni mbënn mii bi mu fi amee ma nekk ci conseil municipal bu Touba ak ba ma ca nekkul dama cee taxaw di ko xeex ba tey jii boo demee ci Kër Ñang gee waa Kër Ñang ngi di ma seede sin waa yaa ngi def canal boo xam ne boo ci dugalee oto mu jaar ca jàll man ci combat boobu laa nekk nekkuma fi pour dee dama fay nekk pour dund comme dama fay nekk pour dund nag képp koo xam ne gis naa la ngay dox ci intérêt boo xam ne intérêt Touba Touba la intérêt njëriñu département bu Mbacké la kooku man dinaa ànd ak yow parce que nekkuma pour sama intérêt bopp loolu nag bu fekkente ni président mi ngi ciy taxawal di ci taxaw di ko def danañ ko saluer nag danañ ko rafetlu yéen ñi nag duñ leen seetaan parce que lii nga xamante ni bii biir sa ñuy jël ay financement di ko jox jigéen ñi di jël ay financement di ko jox ndaw ñi loolu nag du ñu bàyyi kat mukk di àndate ku mel ni Idriss Seck mi nga xam ne boo demee di jël di def ci boppam ñu continuer rek di ko puus déedéet dañuy dem pour wutal leen ci financement yooyu dañuy dem pour taxawu ndaw ñi danañ dem pour taxawu jigéen ñi ba lépp lu mu laaj nag danañ ko def parce que suñu bopp ngir buñ dee sacrifier suñu bopp ngir yéen itam danañ sacrifier suñu bopp ngir yéen. Mouhamed Cissé bis ni ki tey Idrissa Seck ak Mouhamed Cissé c'est fini. bàyyi naa Idrissa Seck ak lu xeetook moom ak lu xeetook parti réew mi Mohamed Cissé bàyyi na ko ba tax na lii moom nañu sori di leen ñaan daal lii di couleur orange bi képp ku mu jege na ko sànni mu sori la mbir soo ci nekkee ñu di la ci dégg ba nga dem ba di ci génn dafa laaj nga wax ak ñi ko séqaloon bi ci njëkk bi may njëkkee maam lu ñu bari umpale muy suma diggante ak Idrissa Seck daa am lu ko ci bëgg a leeral ndax Idrissa Seck képp ku ko xamoon xamoon nañ ni Idrissa Seck ak Touba def defuñu nen ñun ak ñi may àndal ñu am initiative xelal ko ko pour mu jóg ñëw dox digganteem ak waa Touba ñun ñu jiite ko mu ñëw fii ci Touba ñëw sama kër nekk ko 10 jours loolu du lu may sos yéen ñi toog fii ñu bari yéen a ngi ci woon ànd ak moom ci liñ doon dox réconciliation bi am digganteem ak waa Touba ak kilifa yu bari ci dëkk bi ñu di ko dox guddi bara taxal ci lu baree baree bari ba tax nekkinam mën a neex ci biir Touba gi ñu dëkk ma am lu ma ci yokk ci ay wax yu mu wax ba tudd ni Ablaye Wade dafa yëngal aras ma di leen wax ni moom moom bu fekkente ni Ablaye Wade dafa yëngal aras moom dafa màbbu aras dafa màbbu aras ndax bu mënee toog secrétariat national bi yëpp wër ko mu ni Mouhamed Cissé moo dem ci sëñ Moussa Nawel di wax lu ko indi ci këram waatal naa leen Serigne Touba mi ma gëm yaakaar ko waxul dëgg waxul dëgg sëñ Moussa Idrissa tax ma xam ko ñi ay taalibeem mën nañ ci mën nañ ci seede njabootam ñi ngi ci dëkk bi ma man nañ ci seede musuma faa dem si Seck moo tax ma xamanteeg moom kon moom buy jiiñee Ablaye Wade yëngal aras moom dafa rajaxe aras Sénégal nag sénégalais sax laay wax dof moom fii deful taati neen rek xamuñu ne dof na. wax nga daal di pëlisé de. waaw waaye waaju gàtt jooju wax ji muy wax fan yi ku ko dégg xam ni kii àndatul ak sagoom. ay yëfu dof rek lay def ba tax na loolu mënu ko woon ñàkk bañ a leeral pour nit ñi xam beneen bi ci topp yéen ñëpp dégg ngeen ko fan yii mu wax wax ju rëy loolu nag dañ ci interpellé président Macky parce que bu mënee toog di wax ni moom bu fekkoon moo nekk place rey la ah, ndax loolu sénégalais war nañu ubbiwaat seen bët loolu dafay dafay laaj ñu interpellé kon liñ ko doon jiiñ ci histoire bu Bousso dañuy ñaan dossier boobu ñu ubbi ko ndax moo ko wax moo toog publiquement sénégalais yépp di ko seetaan mu ni place Macky Sall bu ko nekkoon Ousmane Sonko li mu bëgg ci moom dina ko def ñun nag ñu ngi ñaan procureur ci boppam loolu mu jóg taxaw ci ndax bugguñu soxlawuñu état boo xam ni boo ko neexul mu rey la te comme moom daa bokk ci ñuy wut réew mi loolu sénégalais yi dañ ko war a xam ba mu leer